alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabi rahma wa kashifil umma wa shafiil umma sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi al qiyama jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew ak ci bitim réew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 jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yéen li ñu sosoon yéen ci seen xadiisu sabaax bi ngeen baaxoo am rekk bët bu set ci waxtu wi tey nag ñi ngi ci suratul maayida ba tey ñi ngi ci nidaau saamin wa salaasuun xooteeb yàlla bi nga xam ne mi koy xoo way gëm ñi ci téeréem bi di yaa ayyuha alladina amano yi tey ñi ngi ci fanweer ak juróom-ñett nidaawu bii nag mi ngi ci suratul maayida ci aaya quatre-vingt-dix mooy aaya bi mujj bu yàlla di wax ci mbiram sàngara waxoon na ci euh, ñaari aaya yu ko jiitu woon ñaari yëpp boo xamee xel settantal aaya ñëw di xaraamal sàngara waaye ànd ak loola lépp taxutoon ñi bàyyi waaye bii mooy bu mujj bi bi ko waxee bu mujj bii nag ki julit jullit bi yëpp ku ne jullit laa rek julit ga nekk lu wér ci yow ci nga war a gàddaay butéel bu bon bi nga xam ne ku takkoog moom mu toroxal la la muy njëkk a toroxal ci yow mooy teqali la ak sa xel mi nga xam ne moom lañ lay ràññee yaag bàyyi ma yi diggante doomu aadama ak mala li nga xam ne mooy màndarga mi leen ràññale mooy xel xel boo ko jëlee li muy tekki luxatan mooy alxablu mooy tekki buum mooy buum gi yàlla yeewee nit ki ba du ëpp ba du manki fi mu war a nekk rek foofa lay nekk ci li mu war a nekk rek lay nekk waaye sa buum googu ñu yeewee la soo ko daggee butéelu sàngara bi wala nga daggee ko boon bi wala nga daggee ko dorog bi amul kenn ku la mën a teree torox dorog ak torox ñoo niroo ku takkoo dorog da nga takkoo torox da torox kabine sa bopp danga nga nekk magam jëmu da torox saw sa bopp ci digg mbedd mi danga nga torox di feccal say doom yoo xam ne soo toroxutoon bu ñuy fecc nga tere leen ko da nga torox di wax wax joo xam ne wax ju nusiwut la da nga torox fafe fa jabar yi sa kër tas da torox gàccaloo sa yaay gàccaloo sa baay gàccaloo famille bi nga bokk yépp boo taqee woo dorog mu yóbbule ci toroxtaane yooya yooyu yëpp ma wax la àdduna la àllaaxira moom ñëwagut danaa ci yegsi moom boo jëlee bon bi moom mu bon loola bon ak bon moom ñoo bokk sa mbon gi fekkee gëggut ci bon am na loo dese waaye bis boo yeggee ci tox bon moom deseetoo ci mbon dara yegg nga ca some ba fa gën a kawe ci mbon egg nga fa waaye sàngara si soo ko jëlee la muy njëkk a def mooy jaxase sa xel mi nga mujj di jëf jëfi mala man ngaa ñëw sëyeeg sa doom ji nga jur ci sa biir ba mujj xamaat ca doom yaa bon su ko defee sa doom ji nga ci am di la wax bu ko neexee wax la baay ndax yaa ko jur bu ko neexee wax la maam ndax yaa jur yaayam kenn gënu bon ci kaw suuf su ko defee euh, demeet nga yàq sa askan mu jaxase ko naka noonu mu jaxase sa xel mi sa alal ji nga amoon yëpp fayeku soldu bi ñëw wara yore sa kër yore sa yaay yore sa baay nga pasar pasaree sa soldu bi ci mbedd mi nga nekk kuy fayeku ñaari million mbaa ñeent mbaa juróom taxul nga am kër wala boo amee kër mën ngaa xëy ñàkk ko ci benn fan dana jaxase sa xel mi ba nga mujj sa palaasu liggéeyukaay booba nga mujj ñàkk ko ndomba tànk yeñ la takkaloon muy yu kawe nga xilif say morom nga mujj ñàkk ko ñooñ ña nga xilifoon mujj xilif la ngir mbon ngoo xam ne nekk na ci yow mu jaxase sa xel mi nga kabine sa bopp di ko saw jàllal bi ko bu amul sens man ngaa fekk sa yaay jëla jur sax nga mujj sëy ak moom man mu jaxase sa xel mi nga saaga sa baay mi nga saaga ponkal mu la mën a duma nga jaxase sa xel di kayang kayang yi ba oto fekk la fa far fil la nga mujj dee fanaani jaaxal laaxira kon koo dégg ñu ne bon na waaye mbon nga yeggagut ci boon dese na mbon ko dégg ñu ne torox na toroxtaaneem nga yegg gut ci dorog toroxtaane nga des waaye bis bu jëfandikoo toroxta maanaam bon rek yegg na ca dayob toroxtaane ko dégg ñu ne alku te alkande ka yóbbu ci naan sàngara rek des na waaye bu xasee yegg ci naan sàngara alku na pire ndax wàccee na boppam ci garaatu nite yóbbu boppam ci garaatu mala ci wala xadd karam naa bani aadama la la wàccee yegg ca suma radannaahu asfala saafilina foofa nag ku faqas yegg torox nga sàngara nag moo tax boo ko seetee yàlla ñetti aaya ba ñeent la ci wàccee bu njëkk ba dafa ne wa min samarati naxiili wal anaabi tattaxiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan inna fi dhalika la ayatan li qawmin yaqiluna ma nga ca naxli aaya soixante sept yàlla ne bokk na ci sama xereñe ak sama yërmande ak sama mën a ma jox leen meññant yi nga xam ne meññant tàndarma la ak yi ngeen man koo lekk bu ngeen ko xoojee mu mujj nëpp soppeeku ngeen naan ko mandi boole ko waaye gis nga ko nag tuddut ko ba mu paree mu ne sakaram rek la ca wax door a wax ne mat mat mat mat tàggatalante wa risqan xasanan kon ndeke risqul xasan ak sàngara yi duñ benn moo tax mu indi waaw waawu xasaf doxale ko ci seen diggante su ko defee kon na kooku mooy aaya ji njëkk wax ci sàngara waaye ki koy déglu bu dee ab jullit li muy njëkk a yëg mooy ne yàlla de dafa wërsëg wu rafet ak wërsëg woo xam ne rafetut wërsëg wu rafetut bi mooy sàngara wërsëg wu rafet wi nag mooy yeneen yi nga xam ne yàlla dafa ko daganal mu yu teey te waxoon naa la ko moo doon suñ dar soob démb bi bu leen xaraamal yu teey yi yàlla daganal ci yéen yaa ayyuha allazina amanu laa tuharrimu tayyibaati ma ahlallahu lakum ba tax ne yàlla daganal ci yow yëpp boo taxawoon xaraamal ko ci sa bopp lu tax mukk mu xaraam la ba mooy sa soxna sa soxna si nag boo xasee taxaw ne ko xaraam nga wala nga ne li yàlla xaraamal ci man daganal naa ko bis ni ki tey te seetewoo sa soxna sa soxna soosa xaraam na la diggante bi dañ koy def muy ñetti fase doo ko mën a takkati lu dul gannaaw baax da sëw ji loolu la imaamu Malik gëm mooy ngiram waaye boo ca génnee soxna nag moom ya ca des yëpp duñ ko jàppee muy dara bu la neexee demal lekk ceebu jën bu la neexee demal lekk ganaar da nekk nit ku ku manqué ko doxa di rek waaye imaamu saafi yow ne na lu tax benn atte laxasu ci sa kaw waaye nag boo ca génnee wut soxna soxna sa rek lañuy ñuy laxas ci sa kaw xaramal ko doo ko mën a takk ci lu dul gannaaw baax da saw ji kon li yàlla daganal ci yow ngir tinc la nga jàll bi ku tënk ci sa bopp nekkul lu simple soo ko waxee te génnee woo ci sa jabar sa jabar gi sax dafay mujj la doo ko mën a takkati lu dul gannaaw baax la kaw su ko defee kon euh, sàngara aaya jooju mu ci njëkk a gannaaw gannaaw siggi ñaareelu aaya jamanke sootu baqara jaaroon nañ ci yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabir wa manaafiu linnaasi bu ca xemoon doy na waaye mu ne wa ismuhuma akbaru min nafihima loolu kay ku xam ak xam na ne lu bakaar ba xëpp njëriñ te njëriñ ba sax du naan nga waaye mooy commerce gaag jaay gaag ñi cay liggéey ak lañ leen di fay ak lañ cay mën a récolté ci xaju kese kon boo dee jullit nga ne naa ko bàyyi bu ñetteel ba mu ne yaa ayyuha alladina amanu la taqrabu salaata wa antum sukaara hatta taalamu ma taquluuna kooku dafa xaraamal sàngara ndax bu ne xaraamal naa ci yéen sàngara bu leen ko jege bu dul maanaam gannaaw waxtu julli te waxtu julli yi ni jege jegee boo koy jëfandikoo sàngara bala ngaa ximmaliku waxtu julli wa ñëwaat moom mooy bàyyi leen sàngara rek euh, waxtu julli benn rek moo ca soree ak moromam ma um, wala ñaar mooy gexe ak fajar te waxtu woowa bu ngeen ca naanee bu ngeen arrangé dafa war a da ngeen war a dem nelaw yi kaasi ngeen war a naan te bàyyi kaasi sàngara ndax bu ngeen xëyee mën a liggéey beneen ba mooy julleeg suba ak tusubaar sore nañ waaye foofa boo fa naanee du la arrangé da waxtu liggéey la fi nga war a dem liggéey nekk sa bureau boo mandee loo fay liggéey dañ lay dàq nga mujj torox kon yàlla kenn du moon ci xereñe dafa xereñe ni muy waxee waaye waxin wi yëpp boo ko déggee lam ëmb mooy xaraamal naa sàngara ba leen ko rek waaye mu tënk ko ci ne bu bu waxtu julli jege bu leen ko jëfandikoo waaye bu waxtu jullee wane gannaaw mën ngaa jëfandikoo te waxtu julli jegee koo xam ne da ngaa màndi tusubaar bala ngaa ximali ko tàkkusaan jot kon kay diggante tàkkusaan ba tusubaar xaraam na ngay naan ku fi naan tàkkusaan bala ngaa ximali ko kayang-kayang ya ala kulli haal timis jot kon kay ndekki diggante timis ak maanaam tàkkusaan yëpp naan fa sàngara xaraam na timis ak gexe boo fa naanee bala ngaa ximali ko gexe jot moo gën a jege moom une heure rek la su ko defee tamit gannaaw gexe boo fa naanee dootoo mën a nelawati te boo nelawut doo mën a xëy liggéey boo jullee su ba pare boo fa naanee yow waxtu liggéey wi teew na dootoo mën a liggéeyati bu yàggee ñu dàqale sa place dootoo dundati nga torop kenn du yàlla yàlla dafa dafa xereñ kenn du moom billahi mooy rabbul izzati wal kon loolu li muy tekki yëpp mooy baleen sàngara rek ñaareel li mu wane bàkkaar ba ca ab jullit lépp luy biji bàkkaar war na koo daw bu ñetteel bi nag mooy aaya ji muy yaa amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun doy na min amali shaytaani doy na fajtanibuuhu doy na laallakum tuflihuuna doy na muy commencé di wax nag conséquence ke ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adaawata wal bagdaa fi lxamri wal maysiri loo rekk doy na wa yasuddukum an zikrillahi xëpp na wa ani salaati mu gën a garaawati mu jeexalee laay ji nag fahal antum muntahuuna ndax ba ngeen fahal antum muntahuuna sax tekku ndax ba ngeen la di jumlatul xabariya waaye insha yàlla ca namu fahal antum muntahuuna mooy intahu rek mooy baleen yàllaam lëmu bu ne baleen ngeen war a ba kon boo jëlee sàngara juróom benni waxin ci aaya wala aayaat ile te benn bu ne bu ca waxoon benn ba doy mu jël yëpp boole ko indil ñu ko waaye ne sàngara kart samp ay bant di yoote ak kii ci aju yëpp jëfi saytaane la min amali saytaan la waaye ab julit war naa daw lu koy jëfloo jëfi saytaane ndax saa yoo mandee jëf nga jëfi saytaane saytaane li doon wut si yow am nga ko da nga saaga da nga xaste da nga fecci da nga sa bopp da saw da nga fase sa jabar mën nga sëy ak sa doom mën ngaa wax lu bon demeet yooyu yëpp lu la ko tax a defloo ku la ko tax a defloo seytaane loola jar naa daw muy benn loolu rek waroon naa tax ñu bàyyi ko ñaareel bi yàllaam la mu ne fastani buuhu waay waay waay teet leen ko bu ko neexoon mu ne waay waay laa tasri buuhu bu leen ko naan waaye bu ne woon bu leen ko naan fajtani buuhu moo ko ëpp balaa sax ndax bu ne woon bu leen ko naan kon naan nga rek lañu tere waaye bu la neexee naan lu ko bu la neexee jaay ko bu la neexee jaay lu ko bu la neexee nal lu ko bu la neexee liggéey dem di raxas kaase ñi defee sàngara di ca liggéey bu la neexee di ko xellil nit ñi ak di ko euh, transporter yóbbu fu nekk waaye ba mu ne faj sani bu teet leen ko yóbbu xal ne teet moom yobbu na jaay yóbbu na nal yóbbu na nal yóbbu na maanaam liggéey ca yóbbu na lépp lépp lépp lu lu ëmb ca loola waaye bu fekkoon ne naan gi lañu tere fay wax ne fala tasribuhu bu leen ko naan waaye li ko noon ah, yi ci des yëpp du ko dugal moo tax mu a faj sani waaye bu ca xemoon doy na yàllaam la mu ne laallakum tuflihuna leer na ma naññ ne su ngeen baxee sàngara da ngeen texe waaye waaye ab julit bëgg naa texe te laalla ji xarfu taxqiq la ci yàlla beneen bi mu tegal ci ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adaawata wal bagdaa fil xamri wal maysiri te saytaane bëgg-bëggam yëpp mooy mu tàbbal ak nooneel ak ak mbañeel jaaree ko ci sàngaraak karta te foofu ñooy ñaari organe yi gën a dëgër yoo xam ne bu ca jaaree rek gañe leen ndax yaa ngi nii boo naanee man nga bañ koo waroon a bëgg muy sa jabar ji di la toggal nga taxaw bañ ko ne ko fase naa la moo tax yonent daan wax ne bu leen may seen doom yi naankatu sangara yi dañuy màndi fase leen continuer sëy ñoom fekk na sëy ba dagg bu yàgg ndax boo màndee ci sangara wala nga tux drogue bi ci àndoog sa xel ba tax nga fase sa soxna sa ci étape booba dañ koy valider ndax lii dañ la koo tere woon waroo ko woon a jege waaye su fekkoon ne da ngaa naan soow wala nga naan ataaya suukar sa ëpp nga jaaree ca màndi fase sa soxna si kenn du ko valider ndax li nga naan wala nga jëfandikoo ko lu dagan la nga caa jël lu ëpp rek waaye lu xaraam moom lu toll ni benn romb wala benn pepp boo ko ca laalee ba sa xel mi faddu étape booba nga fase sa ci jabar ji fase ma dañ koy wéyal kon sàngara saytaane mën na caa jaaree noonu xoola koo waroon a bëgg muy sa baay sa yaay say doom say soxna say mbokk demeet mën na koo jaaree ci karta ndax ñii yëpp ma tudd koo ci gañe aralam ngeen songoo te saytaane mi ngi ko ci jaaree bu ca xemoon doy na yàlla ne wa yasuddukum an zikrillahi dafa ne dëdduloo wala sudd yàlla boo xasee mandi fooy suddee yàlla mos ngeen a dégg ku mandi di jàng alquran mbaa mu mandi di téye kurusam ne ma ngay wirdo mbaa mu mandi téye kaamilam mbaa mu mandi ak yeneen ak yeneen mu ne bu ca xemoon doy na mu ne wa amis salaati su ngeen fi nekkee mandi nekk ca karta ga day waral du ngeen taxawal julli yi waaye waaye kon nag fahal antum muntahuna baleen ko waaye kenn du ko firee ndax ba ngeen comme na ko waa jooju waxee juum loolu kenn waru koo ko wax yu wax yi juum te ju bon la falantu mun taxu ne mooy baleen xabariya bi maana insha la su ko defee kon nag ayaat yile ni ci yàlla waxee waxin wu ne ci juróom benni façon yii yile benn bu ca nekk jaroon na ñi baxi sàngara waaye heureusement tey la sàngara gën a bëri ci réewi jullit ñi tey la sàngara gën a bëri ci doomi jullit yi ñu koy naan rawatina suñu réew mi tey ñi ngi jël sàngara di ko def ci ay saf di ko jaay ci école yi xale yu am fukki at ak ñett ñii fukki at ak ñeent ñii fukki at ak juróom commencé foofa la ñu commencé yi mandi xale yu ndaw te dañu am ak yeewu goo xam ne luñ dëkk ak seen papa lu ñu dëkk seen yaay mënuñoo fexe fexe bañ xam ko buñ koy xamaak rek fekk ëpp na ndax dañoo toll jamono joo xam ne yow yarkat bi yàlla la nattu ki ngay yar moo la gën a yeewu ki lay yar nag ki ngay yar bu la gën a yeewu bala nga koo yar danga xam problème waaye bu njëkk ba boo gisoon yar yomb ñañ daan ña daan yare ñoo gën a xeewu ña ñuy yar ñun nag jamono ji ñi yar ñoo gën a xeew ña leen yar mën naa nekk ak yow di tux boo nekkul naan di te piir doo ko gaaw a xam mën naa nekk ak yow di naan boo nekkul naan di te xam mën naa nekk ak yow di dorog yow boo nekkul nandite piir doo ko man man doo ko gaaw a xam man naa nekk ak yow di njaalo nga nekk ak moom lu yàgg bala nga koo xam rek fekk ëpp na te doo ca mën dara dara dara su boobaa dana dem ba drogue bi ak euh, maanaam sàngara si miin ci deretam jaxasoog moom nga xam ne pour dindi ko dafay nekk loo xam ne lu jafe-jafe la dana toll étape boo xam ne bu naaj wi tàngee sax mu màndi même bu naanu bu ñu tollee foofa nag jéem koo dindi dana nekk lu jafe jafe jafe jafee xam naa ne tey waajur yi may déglu ku leen ëpp problème ki ji jamono ji amut da nga fiy nekk liggéey am sa teraanga ñi weg la nga nekk ku baax am personnalité ci famille bi am ko ci mbokk bi am ko ci dëkkandoor gi waaye ndeketoo bi nga koy xam da ngaa màggaleegut bis boo xasee màggale rek sa doom yu bon yooyu dem xawi sa sutura yaa gënoon a tekki ci famille bi gën cee baax ñi gën la cee fonk ngay joxe xalaat waaye tey say doom a gën a bon ci quartier bi gën a bon ci famille bi mënatoo mënatoo waxati mukk doomi jàmbur ya dara yaa ngeeg doom yuy dorogewu yaa ngeeg doom yu yoo xam ne dañoo ëmbal yaa ngeeg doom yoo xam ne dañ leen a ëmbal yàlla musal ñu ci yaa ngeeg doom yoo xam ne dañuy tux yaa ngeeg doom yoo xam ne dañuy naan te yooyo yëpp dañoo ñëw ngir xaw xawi sa sutura te ji jamono yi ma tudd ku ci mucc yàlla la ci musal waaye duwul sa góorgóorlu duwul sa farlu farlu goo ca def bu foo def nga dara am na ku la ko ëppoon lum def te taxul mu am benn résultat kon yàlla mi mën a dimbale yàlla na ñu yàlla doole dimbale ñun ñëpp ci suñu njaboot te nag waajur wu ne alalam piir mooy njabootam bu njabootam yàqoo rek pour moom li ma xamoon lépp yàqu na ndax li ngay sonnu lépp mooy bëgg am yéene su ma ko bàyyee sama njaboot ñu man cee nekk suturu si duñu am benn problème njaboot googa nag bu ñuy yàqoo rek yow sa lépp yàqu na ci kaw suuf yal na yàlla musal mu ci njaboot gu yàq diine te jamono ji tuxkat yi tu ñuy tux boon kilifa yu bëri sax muccuñ ci bëri na ku ñuy topp ma ngay dorog yow bari na ku ñuy dajalee hadiya bu bu xaalis ba dajee mu dem jëndee ko sàngara naan ko xam nga ni ko kon kenn gënu ko bon kenn gënu koo xiis ñàkku nit ñi foog ne yaa leen gën a jege yàlla ñu dajale ko jox la ko nga dem jox ko jigéen tëdd ak moom nga dem jox ko maanaam eh, jaaykatu sàngara ba naan ko jël ko maanaam def ko dorog sa maam yi liggéey fi diina ji lu ne def nañ ko ci lu baax nga ñëw nekk ab doom wala nga nekk sët bokku ci ña gën a bon nit ñi xormaale la sa maam rek yow moomu kenn gënu laa bon kenn gënu laa xiis kon loolu lépp nañ koy bàyyi xel moo tax kon waxin wi yàlla waxi boo gisee mu waxee ko jamono ji yàlla yónni yonantu bi arab yi ñoo gën a bëgg sàngara sénégalais yi ci ceebu jënu midi ceebu jënu midi nag ni ko Sénégalais yi bëggee nu ko raw la arab yi bëggee woon sàngara booba nag yàlla wóor na ko naññi ne bu xëyoon ne xaraamal naa sàngara bu leen ko jegeti ñëpp ne ko d'accord nañ ne ñun tamit xaraamal nañ sa diine ji boo yeboo yóbbu ko ci ñeneen waaye ñun sa diine ji mënatuñ ca dara kaasi sàngara yi moo ñu gënal sa diine ji yàlla nag ci xereñam ak ci man doxalinam muy wane sàngara bon ya benn par benn ñi koy xoolal seen bopp benn par benn di ko xoolal seen bopp di ko bañ wan leen yàq gi muy yàq seen alal ñaareel bi mu wan leen yàq gi muy yàq seen sante ñetteel bi mu wan leen noonoo gi nga xam ne mu ngi koy bijj ci seen diggante ci bañante gaag soxorante gaa liggéeyante ya mu wan leen xeex gi nga xam ne ñi ngi koy tuurante direct te dara yóbboowul leen ko ludul sàngara fi ñi koy xool par benn di gis mbon nga par benn ba mujj gi ñoo ko njëkk a buddi bañ ak sàngara ga ci seen xool ya laata yàlla di ko wàccee moo tax ba mu ko waxee rek ñoom ñëpp ci ñetti état yi ñu génn ja fekk Sayyidina Omar a ngi sax rek ne yow yàlla bayin lanaa fil xamri bayaanan shafiyan yow yàlla yàlla nga ñu leeral ci sàngara yàq na suñ xel yi yàq na suñ alal yi yàq na suñu wàllu yaram yi yàq na suñ mbokk gi yàq na suñ xaritoo gi yàq na suñ pénc mi yàq na suñ kàndoo gi maa ngi lay ñaan yàlla nga ñu leeral ci sàngara leeral goo xam ne dootuñ ci amati benn lam-lame yaa ayyuhal lazina laa taqrabu salaata baax na leer na laa taqrabu salaata dégg nañ ko waaye daal bëgg nañ lu gën a leeraat ndax ñi seen xel yi lëndëm dafa bëri bu ko defee tamit li nga ñu wax ne eh, maanaam yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabir baax na dégg nañ ko waaye daal bëgg nañ lu gën a leer waaye keroog ba yaa ayyuhal lazina aamanu innamal xamru wàccee ba yàlla di wax ne fal antum muntahuna Omar ku dégg balaaxa la xam na ne fal antum muntahuna mooy intahu rek baleen ko ci la Omar ne intahay naa yaa rabbi bis ni tey moom baxi nañ sàngara carrément dutuñ ko jegeti c'est que aaya jooju li ko tax a wàcc ibnu jarir mooy nettali mu ne sax dubnu abi waqaas mu baax moomu ngeen xam mu ne ci man mi ci la aaya ji wàccee benn góor ci lansaar dafa defar ñam arab yi dañoo baaxoon ku ci tukki loxom jot gannaawam bu ñëwee rek togg ay ñam xooyi mbokkam mu wooñu ñu ñëw ñi lekk ba suur mu teg sàngara si ñi naan màndi ba ñu paree nag commencé di puukaree wante ñun diggante ansaar ak quraysh ñi ne ansaar a gën al ansaaru xayrun min quraysh waa quraysh taxaw ne quraysh moo gën ansaar benn góor yëkkati benn ŋaamu gëlem gu dóor ma ko man ci sama bakkan muy nacc ma dem ci yonantu bi sallallahu alayhi wa wax ko ko foofa la yàlla wàccee aaya jile ci yaa ayyuhal ladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu mu nekk nag dernière étape ci wàllu sàngara dootoo gisati aaya bu ko leeralee nii ak aaya buy waxaatati ci wàllu xaraam ak sàngara li ci aju ndax lii dafa doy sëkk yàlla def ko étape par étape kon liñ koy jànge yow mi may déglu sa doom mel noo xam ne neexul la bul xëy rek jàpp ne jikkoom yu bon yim nekk yëpp mën naa këy bàyyi ko déedéet naxanteel ak moom par benn rek naxanteel ak moom par benn par benn ba mu këy bàyyi yëpp yi nga koy naxanteeg moom nag da koy fexe ba buddi moom mu buddi ko ci biir xolam bi bala nga koo jéem a buddi ci cëram yi boo ko boo koy wan wan nga ak lam ko fa muy mujj ak moom nga koy tegal ay film ña koy def fa ñuy mujj ak nañ meloon ak nañuy yàqee seen bopp mu di ko xool ah nga ko ci waxtaanal bu yàggee mooy dem ba buddi ko ci xolam bi njëkk ngay nangu butéel bi ci loxoom ya boobu nag mooy mooy bi ëpp solo kon naxanteel ak moom ci cigarette ba mu bàyyi ko naxanteeg moom ci drogue bi ba mu bàyyi ko naxanteeg moom ci bon bi ba mu bàyyi ko naxanteeg moom ci sangara si ba mu bàyyi ko étape par étape waaye boo ne li ma naqari lépp lépp laa bëgg tey mu bàyyi ko moom yow lay bàyyi waaye du tax mu bàyyi loola mukk kon jar na bàyyi xel yàlla sàngara musut koo neex ci pénc mi waaye bi mu bëggee defar pénc mi yëg na ne nit ñi niñ bëggee sàngara ak niñ ko miinee bu taxawoon ne tey tey ngeen bàyyi ko ñi bàyyi ko diineem bi waaye mu koy dindi par benn par benn par benn di leen wan mbon gaag di leen wan yàqute gaag di leen wan la ci aju ba ñu bañal ko seen bopp ba nga xam ne ba ko yàlla ya xaraamal fekk na ñoom ñëpp ñu ngéejuwu ko ba wan ko gannaaw waaye yàlla baat yi muy xaraamalee moo lay daane fay sani buuhu di nga la wax teet leen ko waaye waxut falaa tasri buuhu bu leen ko naan ndax fay sani buuhu moo ëpp balaa ko falaa tasri buuhu waxoon naa la ko ndax bu ne woon falaa tasri bu leen ko naan loolu rek naan gi naan gi rek la tere waaye terewul ñu jaay gi terewul ñu jaaylu gi terewul ñu nal gi tere terewul ñu liggéey tere terewul ñu raxas bool yaag sarwi ba waaye bu ne faj sani bu rek nag baxut dara dugal na jaay ak la ci xaju lépp ba dugal la yonent bi taxaw xam ne dugal na ko moo tax mu ne jibril ñëwal na ma ne sama borom rëbb na jëmmi sàngara rëbb na ki koy nal rëbb na ki koy nallu rëbb na ki koy naan rëbb na maanaam ki ko xenu maanaam euh, rëbb na sax kiñ ko xen yéen taximaan yi ngeen xam ne butéeli sàngara la kaay yóbbul ma ko fële wala yéen njaganjaay yi wala yéen avion yi ngeen xam ko nekk jullit dugg ngeen ci biir rëbb mi mu ne yàlla rëbb na ki koy jaay rëbb na kiñ koy jaayloo rëbb na ki koy sarwi yéen yéen ne jullit ngeen nekk bitim réew ñeen jox leen ay kaas sàngara ngeen koy sarwi di xeel bi dugg ngeen ci de moo tax mu ne yàlla daal rëbb na fukk ci sàngara nii la ko yonent bi waxee ibnu abbas ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ataani jibrilu fa qaala ya muhammadu inna allaha azza wa jalla qad la'ana alxamra wa aasiraha wa mu'tasiraha wa shaaribaha wa xaamilaha walmahmulata ilayhi wa baa'i'aha wa mubtaacaha wa saaqiyaha wa musqiyaha lii imaam ahmad moo ko solo ak ibnu xibaan xaakim andi na ko di hadis boo xam ne bu wér a la kon lii bàyyiwul kenn boo yoree taxi waa ji ñëw maa bëgg nga yóbbu ma fii nga xam ne sàngara la nga saf ko ca xaraam na de mi ne bar nga kaay xenul ma sàngara si wàcceel ma ko fële nga ne xam ne sàngara la boo ko xaraam na de restaurant bi woo la kaay nga bokk si ñuy xelli wala mbindaan nga buy raxas boobu maanaam kaasiya wala yow da ngay bokk si ñuy sarwi yooyu yëpp xaraam na de donte ab jullit nga de yëpp da ko war war a kon yii yëpp boo gisee yonent bi wax ko baata fajtanibuhu moo ko dugal waaye bu noon falaa tasribuhu moom li ko noon moom kenn dong lay dugal naan ga muy wasaaribaha waaye yeneen juróom-ñeent yëpp dañ cay génn yàlla baat yi ni mu koy xaraamale gis nga ba muy wax ba muy wax njaaloo bu ko neexoon fekk ne xaraamal njaaloo rek ko ñor dafay wax ne falaa tasnu bu leen njaalo waaye dafa ne wala taqrabu zina mu ëpp balaa téeméer junne yoon mooy bu leen jege njaaloo waaye su fekkoon dafa ne bu leen njaalu rek waaye waxut bu leen ko jege ah kon nag bu la neexee jox soxna si loxo dara néew ci nga ko jege rek tere wut jege njaalu la tere waaye bu la neexee teg ko lex dara nekku ci bu la neexee ngeen tegante loxo dara nekku ci bu la neexee ngeen taqalikoo ni leen neexee moom daal li xaraam rek mooy seen ñaari awra yi jonjoo ko ko mooy njaaloo waaye yàlla kenn du moom dafa ne wala taqarabu zina bu leen ko jege bu ko defee jox loxoog fu ndaw si takkoo koog li xew léegi bon lool ñëw nuyoo ci bureau nekk jabaru jàmbu mbaa nga nekk amaguloo jëkkër waaja ñëw nuyu la akolaat la waaye moo tax corona bi baaxoon na fi de baax na ci côté booba de yooyu yëpp bam ñëwee dàq na yu bon yooye nga xam ne l'islam dafa ko tere ci diggante góor ak jigéen ñi koy jegaante waaye gis nga ko ba ko yàlla tere ñi bañ corona bi ñëw tere leen ko ñoom ñëpp ñu wane gannaaw kon yooyu yëpp lu bon la yàlla kenn du moom ñim ko séq ak la xam ci seen xel yeeg ci seen ñor yeeg ci seen mën a taawil yeeg yu kenn xamul moom bu ko defee nag kenn ku ci nekk ni ñu koy taawile waaye day indi baat boo xam ne kenn mënu koo taawil loolu laxas-laxas mu dugg ca wuteeg ko constitution yi nga xam ne moom la gars yi tëral ci seen luwaa kenn ku ci nekk ak ni nga ko déggee man ngaa ñëw boo bëggee saxal saxal boo bëggee dàq bëgg a bëgg bëgg dàq dàq ba boo leen dégloo da wax ne ñoom ñaar ñëpp wax nañ dëgg tey boo doon dégg ñiy défendre troisième mandat ne mën naa am ñi ne déedéet troisième mandat mën xam ñoom ñaar ku ca wax nga ne ñoom ñaar ñëpp wax dëgg mel ni góor ak siise siise ga bëgg jàmm lool ñaar jotee mu déglu leen ñoom ñaar ñëpp ñi wax kenn ka wax wax ba waxam jeex mu ne ko wax nga dëgg de keneen ka lay la waaj a waxoon ba mu pare mu ne ko wax nga dëgg de ba ñu paree ñoom ñaar doomam ja ko papa ñoom ñaar ñëpp boo leen joxee dëgg dootoo xamante dëgg mu ne ko wax nga dëgg de ñetti dëgg foo ko mos a déggee mu ngoog waaye alquran luwaa yi muy tëral mënoo fexe fexe tap say tappale mënoo fexe fexe say taawil mënoo fexe fexe maanaam say commentaire ba mën a génn baat ya ndax baat ba dafay dugal lépp lu bokk ca loola dara lu ko mën a génn amut waaye bu ne woon bu leen njaaloo rek porte yu bari xubbeeku lu dul njaaloo foo jàng ñu ne ah bu leen jaalu la waxoon rek ñun jaalu wuñ jeex na waaye na fa dafa ne wala taqrabu walaa wala taqrabu bu leen wala taqrabu sina bu leen jege njaalo de wala taqrabu sina bu leen ko jege de su boobaa nag lépp jokkoo ci téléphone ak te soxna si takkoo ko muy wax ngay wax dugg na ci jege jaalo xaraam na dañ ne dañ la ko may mayaguñ la ko nga nekkate ji jokkoog moom ci téléphone ba yëg sa bopp mu yëg boppam te bëri ñu ñu koy laaj lool xaraam na ba jéggi dayoo ñàkk fayda may guñ la soxna si nga génneeg moom di lambar lambar yi nit naan ma man de ñaanal ma ci juróom benni xat maa ngi moom ñi ngi génn ma ne ko kon ne war ngeen a sori juróom benni xat ngeen génnee dox rek te ba léegi duggaatagu leen fa ngeen génnee woon kon de war ngeen a sori nga loolu ñàkk fayda su ko defee yow yaa ngi koy fere ci moom loo xam ne sax mënu ko fere ci sa yaay te mayeguñ la ko xam nga ne ku bon nga loolu lépp dafay dugg ci wala taqrabu zina bu leen jege njaalo lay dugg kon demeet yàlla kenn du moom yàlla nañu yàlla fayal boppam kon nag sàngaraam ngóog ak étape bi ma la ci wax tabaarakallaahu li ci aju xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi ma sof ak ci sàngara jalgati gi muy jalgati xel wax la tamit sàngara képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo juróom ñaari mbugal yi nga xam ne mi ngi lay xaar mënoo fexe fexe ba mucc ca boo ma toppee suba ci waxtu wi mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbuñu ci in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu lay unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci